pour commencer c'est vrai que li nga xam ni moo doxoon sa digganteeg yoon bi ñu waxee ni yoon teg na la loxo bett ñu bëree bëri ndax yow amoon nga mbetteel bi yoon waxee ni dañ lay tef li nga xam ni mooy mandat dépôt. non bettu ma. lu tax. xamoon naa ko te te du xam-xamu baati ah. hmm. xam nga nit ñi dañu xamul man fi may xalaate toujours ñoom dañ damay def ba pare ñu ne ah ok kon gaañ bi nangam o fait Jamra ak luwaawu Sénégal ak nguuru Sénégal dañu tombé ci benn pièce boo xam ne mënoon neen cee ñàkk a tombé luwaawu Sénégal ci lan la tombé mooy ñaara am. Hmm. muy doomu aadama nit ak juma nit gën a foor jumaa fuuf nag wax ak jëf teguwaat jëf gën a foor wax fuuf man ma yëkkati ci seen level ak seen compréhension wax ju ñaaw jëmale ci juma yi. Hmm? Hmm. Euh, yoon def liggéeyam ci man fan la Mame Matar Gueye porté plainte moom mercredi la wax ne porté na plainte kañ euh, euh, jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi moom daal fi mu porté ak fi ñu ma arrêté mercredi la mais man bi ma demee Kaolack ñi ma agressé woon tuumaal ma. Mhm. Euh, tuuma nu mu tuddati sax. Mhm. lu Mame Mbaye Niang di toppee Sonko. accusation accuse déedéet mooy tuuma. diffamation mhm. ne maa saaga seen baay c'est benn crime. agressé ma jël ma kidnappé ma yóbbu ma fu ma neexul. Mhm. menace de mort dégg nga ko den lay rey fii dara du xew. caméra ma yónnee ko 12 janvier 2022 nguuru Sénégal ñu ne ñu ngi ñu ngi xool ba tey ña ko def ñan la quoi. ok aw sa bañ ca jàppoon fanaanul commissariat jour boobu la génn. même précédent même régime même justice même procureur ba tey mënuñoo gis kooku ci kirim yi ma wax mais man bi ma joxee proposition ci jumaa wax ji ñaaw boobu moom fexe neen moom ba ma dem tëddi presque trois mois. Mhm. ça veut tout dire. d'accord pièce boobu jom tombee neen ci. Mhm. ndax man dama sawaroon ci plainte bi ndax dama ne procureur de la république borom xam-xam la jàng na. kilifa la mais Cissé nga baal ma mais ku daan déglu say wax aussi man bon ñu bari dinañ ni euh, xëy na yoon jàppale ci kàddu yooyu bett na la parce que mosoo yaakaar ni xëy na yoon am na fu mu war a mën a taxaw euh, ba teg la ay daan ci loolu ndax mën nga dikk ak ñun un petit peu lu may doole aussi yoon ba mu tëj la ci kàddu yooyu nga xam ne yàgg nga wax ni jàpp nga ni yoon mënu la si daan ma ku mel ni procureur de la république. ci ni mu jàngee ci ni mu amee xam-xam. ba pare waat ci alxuraan. jàpp naa ne suñ ma ko yóbbulee. ci proposition am fee bu taxaw. ni ni ma ni ma juumee man wala ni ma defee lu jaaduwul ba mu jàpp ma. jàpp naa ne dana wax ne kii kat am na lu tegu ci kawam te nguuru Sénégal am neen àq ci jox ko xam ndax Gambien la en même temps sénégalais la mais déedéet ñooñu ba tey gisuñu leen mais man gis nañ ma ba jàpp ma. loolu loolu pour man lu waroon mun a mun a ñàkk la benn mhm. man li ma gëm démb moom laa gëm tey moom laa gëm suba mooy ne képp ku xam loi suma problème bi xam nga li ci xew képp ku xam Sénégal gis nga li xew mhm. képp ku xam diine xam nga li xew ñi xamul nag mu jarut nga leeral leen jàpp neen ma may neen ma liberté provisoire condition judiciaire mais peut-être dineen mës a àtte ju dossier bi dineen xam lan moo xew mais li ma mën a wax rek mooy. Mhm. wéet naa ak yàlla fu kenn nekkul mais jéggaluwuma ko ci suma wax ji suma borom bi ma mën a togg bàkkaar moom safara ak ajjana mhm. waxuma ko astaxfirullah ci li ma wax teew naa jotaay ak yenoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais awma kersa ci li ma wax ci kanamam moom ñaar ñii nag ñoo gën a yell ci ngërmande mais ñoo gën a yell ci ŋàññ mais pour population Sénégal dañ jàpp ne dama tooñ. Mhm. nangu naa nen ma baal ñoom mais jégaluwuma yàlla de. d'accord maak yàlla suma borom. Mhm. déedéet ba ci biir bàmmeel duma ko ci jégalu. waaye nag comme nit ñi ñoom nekk nañ place yàlla bay dóoree ka jàpp bàkkaar nen ma baal. loolu gars yi neen jàpp ne xelu xale la rek. mais adjudant yi ma doon entendre wax naa leen ne. très bientôt ay xale ngi ñëw dinañ leen reetaan ci ne mos ngeen a entendre nit ci cause yi mais maa ngi xamal askanu senegal ne tëjuñu ma man ngir jumaa yi den ma tegal ñetti vidéo benn bi ñu ne maa ne félicitation LGBT damay dimbale góor jigéen. Mhm. muy lu ma métti. ndax képp ku ma xam xam nga suma bëgg jigéen. mais képp ku ma xam xam nga ne. Mhm. je suis libre am naa possibilité dem fu ma neex ci àddina. mais musuma nekk góor jigéen ça veut dire que bëgguma ko. dama ne félicitation LGBT 57 minutes la vidéo bi ñu dagg même pas trois minutes. Absolument. mais lan moo tax ma wax loolu da ngay seetaan 2STV ñu ne la première scène boo ko fa daggee dañuy fen la première scène privée du Sénégal la ñuy wax nga jàpp si FM ñu ne la première scène. Mhm. rajo mhm. du Sénégal déedéet. première scène rajo de urbain. donc maam El Hadj Abdoulaye Cissé baax toog na doon xalifa yàlla doon xalifa Cheikhou Tidiane mu ne ñu ngi gërëm ñu bon ñi boo fa taxawoon mën nga koo wax ne dafay encouragé mbon mais bëgguta wax loolu daf ne ñu bon ñee tax mbaax am valeur. d'accord. suñ bonutoon duñ xam baax. Mm-hmm. mais dagg nga suma wax man mais lan laa bëggoon a wax 94 pour cent musulman loolu la ñu wax ñenn ñi chrétien benn nanguwu ci góor jigéen. Mm-hmm. buñ gëmoon alquran niñ koy jàngee di ko waxee dund ko góor jigéen du am ci ñun bañ koy xeex bay joxañ nit naan ko góor jigéen nga. Mm-hmm. lii rek laa bëgg wax mais loolu rek leen dagg beneen bi ñu ne ma yaa ne da ngay nàmp da ngay da ngay katt ci xale yi. Ah, teg ci su ma demee bay njaalo damay njaalo ak ko jar. ndax ëllëg buñ ma mbugalee ma xam ne jar na ko. mais xam nga loolu su màndute rek amee. ak jàngat bu sell mais jàngaleen ci nit ki wan na la ne njaaloo ak ku ko mën ku ko mën a defal lu mu am am personnalité njaaloo bàkkaaran ca tey mbugalam yàlla mu ngi ci azabun alimun azabun shadidun parce que wax na la ko mhm. waxuma kaay leen njaalo neewuma kaay leen ngeen nàmp déedéet mais problème yi Californie la ak Adja Thiaré may live su ma néeg nit na ma càgg nga sa kër auberge la ma ne ko damay dama doon tontu nit. mais nga dagg loolu ci live ne nit ki da koy àtt ci kàddu bi mais ci biir kàddu gi sax wane na ne njaaloo mbugalam yàlla mu ngi ci. mais alxuraan loolu la wax daf ne bu leen ko jegee ne su ngeen ko defee bàkkaar am na ci. man it loolu la wax boo demee ba koy def ak jigéen même bu fekkee da nga ne Miss senegal la wala kii artiste la ak kum mën a doon. Mm -hmm. ci waxam ji wax na leen a mbugali yàlla ngi ci. donc beneen bi. Mm foog lii leen ne ñu ne mërs attentat à la pudeur. donc lii la quoi. mais moom maam Maxtaar gi mhm. ak Jamra yëpp xam nañ ne du ma góor jigéen. mboolem ku nekk ci corps justice xam nga ne man duma góor jigéen yàlla xam na ne du ma góor jigéen man xam naa ko su ma nooni sax xam na ne du ma góor jigéen. d'accord donc pour man. Euh, su ma amee lu ma naxari ci procédure bi mooy mbiru LGBT. métti na ma trop mais à loolu. Uh-huh. lépp sant rek la de. pour ñu comprendre bu baax dafa mel ni coow li nga xamee ni moo waraloon yoon teg la loxo bi nga demee da fa fekk yeneen coow loo xam ni ci lañ la impliqué ci sa PV. ba xam-xam bu gàtt. d' accord ndax amoo ci un peu quand benn part de responsabilité ndax bi coow li amee kii di Mame Matar Gueye Jamra yëkkati na ay kaddu xam leen ni yàgg na la dànkaafu ci kaddu yi ngay faral di yëkkiteeg yu demee noonu nga joxoon kaddu mais après jëfewoo loolu. non c'est pas loolu du dëgg loolu amul de. Amathar Gueye mosul avertir ci ay propos yooyu yëkkati. non dafa jaxase wax yi. Hmm. mos nañu waxtaan man ak moom en tant que nit ak nit jullit ak jullit mais mbiri jumaa yi. Hmm. woowul ma ci woowu ko. mais moom day jaxase wax yi jëlee fële indi fii demee demeewut noonu demeewut ni mu ko waxee woo na ma loolu am na. Hmm. waxtaan nañu am na ñaan na ma ñekk man nee naa ko dana la may loolu am na. mais amul loolu ak lii du ñu benn lii dafa am rek ma gis ko ci presse muy wax may wax may wax muy wax ba ma porté plainte nii la demee. Mhm. très bien comprendre mhm. xam nga yow nga ñëw suma kër tey. Mhm. ma may la dix mille suba nga ñëwaat mais ma vingt mille. munoo wax ne dem naa këram na xam nga benn bis la bu am leneen li am mais. Euh, comme ne wax naa ci mbiri jumaa yi mu ooma wax ma ci njekk ak teranga moom xam na ne loolu amut d'accord très bien man xam naa ne amut. Mhm. donc ah. dafa dem rek ci yoonam ma dem suma yoon. d'accord ñu bari ci askan bi jàpp ni kàddu yooyu dafa jaroon nga jégglu bi coow li amee bees loolu nga waroon a njëkkee def waaye loolu c'est dommage que fi nga ko defee dafa xaw a yéex trop fële ci prison bi la loolu aussi loo ciy tontu. non non man gisuma woon jéggalu franchement. te moom nga mujje no awma ci choix. d'accord mais dégloo ma ne yàlla mi moom nit ñi jéggaluwuma ko. ok xam nga loolu maag yàlla la xanaa duñ ma ci jàpp. yonentu yàlla Muhammad moom leen jox dina jéggaluwuma ko mais même su fekkee ne yow danga bokk ci société nga nga nga bëgg jàmm. Mhm. yàlla teral la lu mu leen teralewut xam nga su caméra yëpp fayee. Mhm. nit ñu bëri den naan noo gaañ bi li mu wax dëgg la quoi mais ma wax la dara. Mhm. songaan yaa ngi ci réew moo xam ne. yàlla yónni na fi wàllu bu ne. xalif général yu baax yi ñu ngi nii di dund. xam nga alxuraan tënku leen. bible tënku leen constitution moo leen tënk. constitution boobu seppi na jigéen ci askan wi jox ko carte na ko demal taxaw ci mbedd xaar góor mu ñëw ngeen jaaloo mu fay la dagan na la mooy carte prostitution am na ci réew mi. absolument moom yàqut société. Mm. ci réew mii nga nekk umul xabaais muy sàngaran jox neen la autorisation nga naan ko nga jënd ko boo amee 18 ans mais yàqut société bi. ci réew mii nga toll LONASE kartaakaay la yaa ngi dégg. na daganal leen karta ba nga mën koo def. ba place kartekaay di dugal loxoom ci xew-xew yi ñu koy gërëm mais yàqu diine mais benn Cheikh Ahmed buy wax olof olof ne nopp mu ne nopp olof ne gémmiñ mu ne gémmiñ olof ne koy mu ne koy kooku moom day yàq diine heurté à la publique. donc su réew demee noonu. Mm-hmm. il faut jouer le avec ñoom. d'accord mm-hmm. mbokk yi. am di jàmm ak compréhension daf lay may yow nga bokk ci rythme bi rek. mais su fekkoon ne man dama libre su may mbokk libre. Mhm. non du ma jéggalu kenn. d'accord très pour lan ma di ko def. Mhm. parce que su dee jullit la am naa xel am xam-xam kan moom moom bàkkaar ku ko war a togg nit ku dul yàlla. ok loo gis na jarul jéggalu yàlla jarul jéggalu nit mais yàlla ak nit du benn ndax yàlla du jàpp. d'accord xam nga lislaam su jullit juumee ci lislaam xeex ko du yóbbu ko kaso waaw xeex ko du duma ko mhm. laayante biir la muñ ak ñaanal dañ la laayante biir na sëriñ bi nangu ko aussi mamataar nee na woon na ba nga yëkkati ay kàddu rawatina yi ngay def ci ay laay fa gi leeraloon naa la ko ma la du benn voilà mais bul wax kon ni xëy na laayante biir te jiital nañ li nga xam ne mooy laayante biir sëriñ bi Cissé non non non wax yi du benn ba tey ok si bii mhm. kenn laayewut ma biir ok loolu amut mais doo mun a wax ne démb mayoon naa la mburu tey da nga xiif xiifa la rey du dëgg parce que démb mayoon naa la mburu c'est pas vrai congaan bële. Mhm. man ak moom la ñu seq ko mais ci bii directement procureur mais man dama ne. Mhm. boroom xam-xam bu juddoo ci lislaam xam diine nekk ci diine am njëriñ ci diine bu juumee ci diine neen ko àtte ci diine loolu laa wax man. mais kañ ma yóbbu constitution bi may indi islam reconnaître ko. d'accord. xam nga Mame Makhtar taxaw na mu ne man aw ma kilifa yow xam nga ne loolu du dëgg. yow xam nga ne waxu dëgg. Malick si su suma bàyyi Cheikh Oumar ko yar. Hmm. imaam Cheikh leen ma bàyyi la suñ maam yi bokk ndey ak bàyyi su ma ku ma ëpput kilifa ci réew mi ëppoo ma ko wax na ko Walfadjri et tu sais bien que c'est pas vrai. parce que xamuma moom maam maxtar Gueye ñëpp xam nañ ko mais soo laajoon kilifaam kenn xamul kuy kilifaam xam nga donc tey euh, bi ma waxee li ma wax. d'accord ci jëfinu lislaam mhm. invitation mënoon na am. procureur biñ ma jàppee du deen ma invité intro introgué mhm. ma boole maag waa Sibèr ñu laaj ma euh, garde à vue yi jóge den ñoom dañoo def procédure ñëw ñu rek ne den ko tëj neen damm caabi ji déedéet den maa jox convocation ba ànd ak guy gi ma lay tëdd. 10 mhm. heures dem jëli ko suba gi ñu ne ma midi ma uyu ji 10 heures ñu interroger ma ba 19 heures tegal ma papier na ma signéel garde à vue ma signé ñu demaat ay fan na ma mandat dépôt. ma demaat ñu ne ma liberté provisoire avec judiciaire contrôle judiciaire. Mhm. xam nga ñoom jaar neen procédure. Mhm. ma tey man li loi boobu def. ak lu ba ci am beneen gis-gis. loolu la umma bi nga xam ne ñoo doon mer ci turu lislaam waroon a def parce que nag dem na ñëw na jullit laa de te suba jullit yaa ku dul yàlla mënu koo dëgëral. waaye ku yàlla mënu koo bañ. Mhm. invitation mënoon na am sortie yi gee def yëpp ni ma woowee mënoon naa ma woo téléphone Cheikh Ahmed Cissé dégg neen li nga wax imaam yi mer neen kaay su ma ñëwul nag ñu ne ah doomi soxna bi daw na wax na xam-xam ñu oo ko ci xam-xam mu daw. su ma ñëwee toog ji wax ma indi ay lay. d'accord xam nga lislaam kenn moomu ko. diine la boo xam ne. Mhm. dégg-dégg bi moo wutale nit ñi. Mhm. ma toog nga toog nga ne ma lii nga wax hadis bii daf la weddi aaya bi daf la weddi su boobaa ma xam ne kat su ma njàng ndax na.